dañ ko njëkk a romance muy jaay boppam kër lis non waxuñu ko fi woon ci ci ci tribunal bu njëkk ba ñu romance ko mu ne jaayuma sama bopp damaa wàcc damay soog a wàcc man damay liggéey ci benn massage fu Ousmane Sonko di kiiwee ci la ñu ko tonget Sidi Axma woo Dior Diagne ci la ñu tëggee combat bii dem ci fils Antoine Diop ñoo tëgg complot bi kon bu me waa ji bu taxawee waa ji APR la bu ba gis nga Macky Sall Macky Sall du ci set tey du ëllëg ndax moom moom justice moom ba muy commencé bu ne woon arrêté leen ko ñu arrêté waaye mooy bopp ba moo ko arrangé woon pour waddal Ousmane Sonko li waddal Karim Wade waddal euh, Khalifa Sall du waddal Ousmane Sonko Ousmane Sonko seen baay Ousmane Sonko seen baay du wax ak mbajo kooku dafa set Adji Sarr dafa toog nit nitu diine la tooñ tooñ nitu yàlla di ko takkal ay ay viol foofu yàlla teg ko fa nga xam ne mbugal bu bu koy tooxal ñu koy sëy kanam ak ginnaaw saw yooyu muy saw yi c'est vrai wérul bu ñuy sëy kanam sa day bàyyeeku sa sax day bàyyeeku parce que dañ koy sëyee ginnaaw sama gars yi na seen xel Mollah ferul Mollah dafa xeex ba yegg si fii Mollah ferul tay leen laay fam dañ leen wax dëgg ñun ñëpp dañu tayal suñu laay ndax wax dëgg di wax dëgg ba mu neex suba suba waa ji dellu gannaaw rek ngeen ne Mollah day fen Mollah fenul bàyyi leen bàyyi leen loolu yéen dafa war a juum sax benn côté keneen ku ko wax ngeen ne ko non nii ak lu waaye di tane nit buy sangu di ko simi nit da ngay am xel ànd ak sa xel di doxee ak sa xel mais doo doxee dooleeg parax parax làmmiñ bu rëy xeex boo xamante ne da ngay yàqamti kenn pat dana nga dàq nga daaneel ko pour lan nit nit la mën a doon yàllaa dul jur mu laa topp na action bi